teg ci ministre de l'intérieur mi nga xam ni moo am kóoluteef ba tey mu yóbbu ñu ci commissariat central bu Thiès nekk boo fa nekkee central nekk chef service régional sécurité publique bu région du Thiès yëpp donc dañ ko ci sant te kóoluteef googu dinañ def suñ kemtalaay kattan ba ni nga xam ni noonu lañ daan liggéey mooy

ndax le diiru liñ fi nekk mu nekk xalif général ñu ànd ak moom ci sécurité am di ko gérer loolu tawféex la ci ñun ndax dañ ciy liggéey ndax sécurité xalif général moom dañ ko war a assurer état bee ko war a assurer ñun yàlla def ñu nekk ci moom di ko assurer mais aussi di ci liggéeyal Serigne Touba. donc mu nekk ñaari mbir yu am solo la te ànd nañ ceeg moom ba mu nangul ñu ko ba jàpp ni liggéey bi moom ñi koy defee ni war ànd ceeg pastef donc ñi ngi koy sant bu baax di sant waa kër ñi nga xam ni ñoo ànd bi euh, yónnee na fi Cheikh Abdou Latif ñëw na fi ak ñoom waa kër gi yëpp ñëw ci suba pour vraiment jot li ma cantuk sëriñ bi ak nuyum ak ñaanam ma di sant bu baax euh, sëriñ Abdou Lahad Ka mii nekk meeru Touba sëñ bi wóolu ko dénk ko ko ñu ànd ci nag ñaari at yi ànd bu rafet géré fi comme ni mu ko waxee dossier yu compliqué yu sensible mais yàlla may ñu ci ndam nag ndax wax dëgg yàlla dañ cee ànd rek ci loyauté ci ngor am ñaari nino bu ñuy ànd te mu leer la ni kenn du ci war kenn rek ànd boobu day neex ndax kenn du am retenu dañuy dem rek bokk ñu ngi ko ci sant bu baax ak jàppale nag bi mu jàng xam ni moom lay jàppale commissariat bi ci ñu mën a def liggéey bi niñ ko war a def di sant bu baax population Touba yi nga xam ni ñoom lañuy liggéeyal waaw ndax ni ma ko waxe woon léegi rek bu amul ay nit ñu fi nekk bon police bi du fi nekk te police bu fi nekkee pour nit ñi la du pour du pour lor ay nit ndax ki mooy tax guddi nga jóg di sam kaaraangeem bëccëg nga taxaw di ko sàmm bëgg oto yi daw ndànk di daw normal di dugu di wut yo délinquant yoo jàpp pour bañ lor kuy jubal ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ndax euh, buñ fi defee résultat ba tey ñu toog fii di wax aussi am nañ ci wax dëgg yàlla luñ ci boole ñi ngi sant yàlla bu baax nak. monsieur le maire wax na ko léegi jarut ma ci delsi euh, résultat yi nga xam ne moom lañ fi def ànd koog personnel bi yépp dafa nekk résultat yu am solo maa ngi koy wax léegi ne année 2018 bi 1er janvier ba novembre bis bi ñu toll liñ fi defeere mat na 1907 personnes ñoo xam ni pardon ñi ci jàpp interpellé leen te loolu lépp ci ay opération la yoo xam ni dañ koy def guddi di ko def bëccëg ñiñ ci defee rek daanaka mat na junni ndax 965 personnes lañ rek ci at mi te at mi jeexagul yaakaar naa ni loolu ku farluwul amoo Pastef mënoo koo def ci mu at ndax loolu du ma ni benn commissariat defu ko de mais boo dee compté commissariat yi di ko def senegal yaakaar naa boo nee benn xëy na doonu ñaar. ci sant suñu borom sant suñu waajur yi sant ñi nga xam ne nii tamit ñoom lañ àndaloon di liggéey te joge ci Fatick te ñoom ñépp ñu bàyyi liggéey ba ne dañuy ànd ak ñun fii ci tuuba ñoom ñépp ku nekk dafa bëggoon wax. wax ni nga xam ne nii noonu lay nekkee liñ ci jublu nag maanaam ay seede la waaye tamit leeral fur fi nga xam ne nii foofu la ñu nekk te ñi fi dëkk umpalee ñu ndaxte ñi fi dëkk xamuñu ñu waaye ñoom ñi nga xam ne nii ñoom lañ àndal liggéey ay at sa dëkku président de la république ñu ñëw fii li ñu jublu woon ci kàddu yi nga xam ne nii moom lañu wax ak li ñu jublu si ku nekk bëgg a wax mooy dalal xelu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy dëkkandoo ñi dëkk si dëkk bi te dëkk Touba ah dalal xel yooyu tamit ñun dañ si yokku ne ñun ci dëkk bi lañ dëkk ay taalibe lañ suñu baay fii la dëkk Daaru Xuddoos la dëkk si wetu kër sëriñ siidi bu Abdullah abdoulahat mbakke ñëpp ko xam foofu non sama rakk yi tamit ñi nga xam ne ñoo nekk si marché bi di liggéey su ma waxoon seen tur ñoom ñëpp di ngeen ñëpp di ngeen leen xam man ngeen umpale ndax man maa nekk ndakaaru doon jàng ndax ngeen ma donc nag ngi dalal si ñi nga xam ne nii la ñu liggéey ak teg suñu tànk fi nga xam ne nii moom la fa suñu mag ji muy Serigne Mbacke Diagne Modou Mbacke jaañ wax léegi moom mooy liggéey ak yéen si ngor liggéey ak yéen si dëgg liggéey ak yéen si masla foofu lañ fas yéenee teg suñu tànk incha allahu taala mu ànd ak sutura mu ànd ak maanaam humanité bi nga xam ne nii moom noonu ñu ko waxee. ba ñu weetee sànq si bureau wax nañu lu bari nag si dëkk bi boo xam ne nii dëkk fi taxut a xam dëkk bi donc ñun xamuñu dëkk bi dara fi lañ nàmpee waaye xamuñu fi lu bari moom am na lu bari loo xam ne nii moom lañu dénk liggéey bi nag ndam bi suñu borom moo koy joxe waaye du ñun rek ñun ñoo ko war a def ñi koy def mooy personnel bi nga xam ne nii moom lañ fi fekk ñooñu commissaire wax na léegi résultat yi nga xam ne nii def na ko nekkaay bi nga xam ne nii nekk nañ ko engage bi nga engagement bi nga xam ne nii ànd nañ ko ak ñoom donc man tamit su ma ñëwee dama leen di tàllal sama loxo fas yéene nekk ñoom seen ginnaaw jiital leen ñu ànd liggéey liggéey bi liñ ci séentu mooy ñi nga xam ne nii ñoo ñu jiital muy suñu kilifa yi nekk Dakar kontaan si ñun ñi nga xam ne nii ñoo nekk fii te ki si jiitu moom mooy sëriñ bi kontaan si ñun te ki nga xam ne nii tamit ñoom ñooy population bi kontaan si ñun